reelu xaaju xibaar li ci yéene kaay yi dalal alpulaar bi jaamu séeréer Seydina Omar Ba ñu ngi lay nuyu Abdoulaye maa ngi lay fay naka suba si ba tawatoo alhamdulilah si ñu ngi ci ko am alhamdulilah Walf Quotidien lam ñu xëyee tey ci xëtam waaye yéene kaay gi Walf Quotidien Abdoulaye dafa xëyee dellu siwaat ci saisine mu soxal ko de si bu si day waaye avocat Ousmane ñoo ko def euh, saako daal li nga xamoo di àq ak yelleefam ñu daal di ko koy jox noonu la ko yéene gi xëy fësale yéene gi jàpp ne Ousmane Sonko ma nga fas yéene jàkkaarloo ak mur noonu la ko yéenekaay gi di Walf Quotidien xëy Fassal Abdoulaye yéenekaay geneen le quotidien yéenekaay gi Sud Quotidien xëy ne avocat Ousmane Sonko dañ ko gi ne am boo xam ne ni ki ko war a amal waaye njort nañ du am ndax état bu Sénégal ne ndax eh, dañuy gis ne ne dañoo ay panne ci wàllu courant amoon tamit ci ay panne ci wàllu internet ba tax na lu jëm ci audience bi préparé wuñ ko daal la ñuy mooy ñu dàqalu toll ci benn semaine yenekaay gi ne cour de justice bu CEDEAO dana fas yéene àddu ci mbir mi waaye euh, laaj bi mooy est-ce que bu ñu àddoo état bu Sénégal dana ko jëfe noonu la ko yéen a kaay gii Sud Quotidien xëy fësal. ma ngoog yéen a kaay réew mi. réew mi dafa déclaré forfait. noonu la ko yéen a kaay gi xëy agence judiciaire de l'État moo jël dogal bu ni mel ndax dañu jàpp ne techniquement pare guñu euh, kon face à face Ousmane Sonko ni ki tey ji dañ ko fas yéene amal fële ci Abuja noonu la ko yéen a kaay te réew mi xëy fësale. le peuple quotidien. diffusion rapport médical bu Ousmane Sonko thème moo di rapport médical Ousmane Sonko dañuy joxañu ab baaraamu tuuma ne Amadou Ba ak Fatima nekk ci ginnaaw loolu nag doon loo xam ne nii euh, yéen kaay gi xëy na ko fësal ku ci mel ni Fatima Kane ngir ñu ko xamul doom ba mën a soxna yaayam euh, Seynabou Diouf lay wuyoo euh, en 2019 moom la fi taboon def ko mu policière bi gën a xarañ daanaka ci police bi la fële ci Nations Unies Euh, moom nag démb dañ ko waroon a jébal procureur waaye dañ ko def retour de parquet euh, tey jii nag dina fas yéene jàkkaarloo booy àttekat bi noonu la ko yéene kaay gii di la peuple xëy fesal yor yor bi lum ñu dëgtal euh, yor yor bi ne uxuwan Branco yëkkati nay dara mbir yi mooma moom moo jël décision kon daal di siiwal li nga xam ne rapport médical bu Ousmane Sonko waaye nañu la ko yéene kaay gii di yor yor xëy fesal critique critique ne candidature rupture bi nga xam ne nii moom Mouhamed Boun Abdallah Dionne moo ngi koy woote jamono ji yéen gi dafa xëy samp laaj bëgg a xam ndax mbir yi du ay caaxaan parce que Mouhamed Boun Abdallah dafa mel ni que moom Amadou Ba sëg naf lañ kese boo ci ëlbati mu jox la beneen ba ci des noonu la ko yéen kaay gii critique xëyee fësale yéen kaay gi di ñaawlu la nga xam ne xew na fa ni ki fan yu ñu génn te mooy néew benn waay yoo xam dañ ko sulli ba noonu li jafal ko moom xalifa bi daal nee na yoonam nekko ca yoonu Léona Niassène nekko ca te nañ jàpp na armée yooyu la aussi euh, du Léona Niassène moo koy gérer noonu la koy maanaam du njabootu njaboot gee koy gérer noonu la ko yéen a kaay yéegi la mandat xëy sursaalum ñu ah, dégtal yéen a kaay soir ci lu ñu mel mois de góor jigéen bi ne Euh, Cheikh Fall euh, maanaam waa ji ne góor jigéen la te wuyoo Cheikh Fall tey gars yi dañ la koy sulli ba noppi taal ak néewam loolu nag njaboo wax lew nañ seen yëkk seen i daal di koy ñaaw dañ jàpp ne kon loolu lu dëgër yoon euh, tax yéen i kaay gi di suusa xëy tey ji daal di ci amal ab taxaw seetlu Abdoulaye taxaw seetlu beneen turbine wax ci bassin de bu nekk fële ca Touba Pofdi bassin boobu la jamono ji dafa faq euh, utali dëkkuwaay yi lee mm-hmm. eh, bëri na fi ay tool yoo xam ne daanaka dafa wóoroon bassin bi la fu mu toll yàqu na eh, moom mm-hmm. la ko yéene kaay gii di la tribune xëy enquête lam mu ñu ngi nax saay mm-hmm. ña ngay jël lépp daal di ko jaay gars ko buddi rek dafa immeuble euh, tax yéen kaay gii di lanket xëyte ji daal ci amal ab taxaw seetlu soleil ku def lu rëy am lu rey moom la wolof yi wax médaillé euh, championnat du monde de football ñi nga xam ne la ñu duppee les malentendants président Macky Sall daal na leen démb kenn ku ne nag jox na lu ci tolloog juróom-ñaari millions ci francs CFA ngir delloo la njukkal seen taxawaay ci coupe du monde bu buule noonu la ko yéen kaay ji de la solo yi xëy fësal yéen kaay bi di stade Messi moom la tàbb def ko mu doon soor bi gën a xarañ ci àdduna bi bi nag mooy juróom-ñetteelu yoon ñu ko koy tàbb Messi kon daanaka dugg na ci biir histoire ngoob euh, ci taarixu football euh, suñu lamb waaw Modou mooy idolu fuul bi noonu la ko mm-hmm. yéen a kaay xëy fësale gars yi neexul ba neex waaye Modou Lo ab véritable machine de guerre la 24 combats 20 victoires la ci am roi des arènes ci 2019 Modou Lo nag nit la ko xam ni dafa war a wane ne Amadou Ama Baldé du